mooy ne yàlla ku bi yonentam alayhi salaatu wassalaam bàyyiwuñu wenn yiw mu mëg walla mu ndaw lu dul xamale nañu ko wane nañ cay jotee ba pare digle jot ca bàyyiwuñu it wenn musiba wenn ay lu dul xamale nañ ko wëttandikuloo ñu ko tere ñu ko moo tax muy diine jumat mat rafet lool kaar caanam yépp bokk na ci lii jeexital jommetek lenn ci yéeféer yi jamonoy saxaaba yi mooy ndeke yonentu sallallahu alayhi wa sallam xamal na saxaaba yi lu ne kenn ci yéeféer yi def ne salmaanul farisi yéen daal seen yonent bi mooy yéeme xamal na leen lu ne qad allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam kulla shay'in xatta alxiraa ba ci dem joor ba ci dem toilette sax xamal na leen teggin ya ca aju Salman ne ko ajal nahaana an nastaqbila alqiblata bi gaitin aw bawl waawow ahankay xamal nañu lépp wax nañu ne sax bu ñuy dem toilette moo xam dem joor la wala tuur ndox bu ñu jublu qibla xadis jàng ci Tirmidi diine ji mbokk yi diiney set la diine ji diiney laab la moo tax ñu bëgg a ànd ak tey jàng teggin yi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa jàngal nañu ko mu aju ci dem toilette ba ca njëkk mooy <clears throat> kiy dem toilette na xam ne fa muy jëm tàqalewu kook yàlla moo tax balaa moo dugg yonentu ne na wax bismillah hadis jàng mi ngi ci Ibnu Majata bu waxee bi bismillahi ba pare muslu yàlla ci bépp xeetu mbon rawatina seytaane yu góor ak yu jigéen mooy mu ne audu billahi min alxubuthi walxabais wala allahuma inni buy duggit mu njëkkee tànku càmmoñam suy dugg buy génn mu njëkkee tànk ndeyjooram daal di wax xufraanaka dañ ci dellu si bu demee ba fa muy <clears throat> demee joor bokk na ci teggin yi bii Seyduna Salman tudd muy baña a jublu xibla moo xam dafay saw wala dafay def ba ca des xibla bokk na ci shaa'irullaahi yi gën a mëg sama borom nee na nag ku màggal sha'airullah ak xurumatillah fa innaha min taqwa alqulub fa huwa xayrun lahu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ida jalasa ahadukum ala xaajatihi fala yastaqbil alqiblata wala yastadbirha loolu nag dafay fekk mu koy defee foo xam ne dafa am choix waaye bu dee toilette yi ne ci kër yi ñu defee ko noo xam ne mënta bañ a jublu wala dëddu xibla du lor kon mu defee ko nam mëne bokk na ci teggi ni mooy kiy tuur ndox ndigam góor la bu mu téyee ngóoram si ngóoram si bu mu ko téyee ndey jooram ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ida baala ahadukum fala yaxudanna dakarahu bi wala yastanji bi wala yatanafas fi l ina xadis jàng ci Buxaari beneen mooy bu demee ba noppi bay dëñal sobesi bum bu mu jëfandikoo ndeyjooram na jëfandikoo càmmoñam ngir li yonentu sallallahu wax ne ida tamassaxa ahadukum fala yatamassax bi yaminihi hadis jàng ci Buxaari ndey xafsatu di soxna yonentu sallallahu alayhi wax na ne yonentu sallallahu alayhi ndey jooram la daan jëfandikoo ci lekkam ci naanam ci njàppam ci solom yéreem ci jëlam ci joxeem yonentu buy lekk ndeyjoor lay lekkee buy naan ndeyjoor lay naanee buy jàpp ndeyjoor lay njëkkee balaa moo raxas raxas ko soo a raxas càmmoñ buy sol yére ndeyjoor lay njëkk dugal buy jël ndeyjoor lay jëlee buy joxe ndeyjoor lay joxe mu ne nag wa yaj'alu shimaalahu lima siwa dalik lu dul yii mu ne mu njëkkee càmmoñam maanaam lépp loo xam ne rek dafa jëm ci wàllu dindi lu sobe wala dindi sobe teggin mooy ñu defee ko càmmoñ yonentu wax na ne ida stataaba ahadukum fala yastatib fala yastatib bi yaminihi li bi shimali na tàncoo na tàncoo eh, càmmoñam mooy na laaboo càmmoñam loolu la yonentu bi sallallahu alayhi digal képp koo xam ne yegg na ci di diñal sobe xadis jàng ci ibnu maajata suy faj xaajoom moo xam tuur ndox la walla ba ca des sunna mooy mu toog ndax moo ëpp sutura su fekkee fam koy defee ab àll la moo gën a mën a wóolu tamit ngir saw mi bañ a dellusi ci moom walla taqal yéreem yi su fekkee ne nag yooyu amu ca mën naa tu ndox taxaw ndax dagan na bokk na ci adab ak sunna it mu nekk foo xam ne dafay sori bëtu nit ñi fii nag buñ ne sunna jubluwuñ luñ sopp waaye faratala ndax sañu la sañu la wan awraam kumoo kumu moo tax bu fekkee ne dafa nekk ci àll te amul lu ko suturaal ci nit ñi na dema dema dem ba fu ko kenn dul gisee loolu mooy li nga xam ne moom la yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jàngale bu fekkee it fa mu nekk mënta am fu ko nit ñi dul gisee na dem ba jege suuf soog a dindi ay yéreem ngir ne kenn du seen awraam loolu it mooy sunna si nga xam ne moom la ñu mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàngal su fekkee nag danga dugg ci sa toilette bul dindi sa yére tànk tëjuloo toilette bi ba nga xam ne kenn nëji sa tut la foofu nag la ñuy gisee l'islam civilisation ni mu wuteeg soowu jant fii da nga gis ñu ranger les yoo xam ne kii dafa taxaw fii di saw kii taxaw fële di saw te yàlla kersa ak sutura moo tax sa ngóor si wala sa jigéen si jigéen ji mu defal la ko ci diggantey tànk ba kenn du ko gën a mën a gis jaaduwul daganut nga koy wan ñeneen ñi waxuma la ci tuur ndox waaye tey boo demee ci salle de gym yi problème sax dem ca sangookaay ba ndax ñu toll ni seen bàyyi ngay gis ñu def yaramu neen di taxawaalu wala nga dugg ci sauna room yi nga gis koo xam ne dafay def yaramu neen ñëw dugg waaye defee nga jël say bagage génn doo xam rek lana xew jëf yoo xam ne yenn ci bàyyi ma yi sax ëppal nañ ko seen bopp ndax bu ñuy jëfandikoo yooyu le ñoom ci bàyyi ma yi am na ci yu nga xam ne kenn du leen gis dañoo suturaal seen bopp waaye defee nag ñun buñ ca bokk waaw buñ ca bokk mukk ndax yonentu sa laay wa sallam moo ñu jàngal defee ñaan yooyu ngay ñaan booy dugg nga xam ne fàtte fàttewoo sa borom booy génnit nga ne ah yàlla sant naa la de bi nga ma mayee xéwal gile ba pare may ma ma digéré ko ba pare tabaarakallaahu faj ah sama aajo loolu xéwal la bu nga xam ne ah dara dara yemul ni moom bu ko nit ki gisee waaw bu paree yi tamit na fexe ba sonnee dañal sobe ga nam waree bu mu bàyyandiku wala muy sàggan di desal sobe ci yaramam ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ju nekk ca ibnu majata mu ne aktharu azabil qabri min al bawli li ëpp ci mbugalam bàmmel ci am saw lay jógee musuma gis lu gën a ragluwaay bàmmel sànq rek la yóbbu benn Euh, way juru kenn ci mbokk yi fii waaw waaye biñ koy biñ koy denc man li jóge ci man ba léegi dikkagut laa ilaha illa allah yan nañu yàlla may yàlla te may ñu déegu rafet may ñu tabaarakallahu muj gu rafet may ñu ñu jubóog moom fii jubóog moom fële yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee li ëpp ci mbugalum bàmmeel ci tuur ndox lay jógee yàlla musal way juru mbokk moomu ak képp ku nekk ci bàmmeel ci mbugalum bàmmeel muy suñu mbokk Tahir di ku baax a baax a baax yal ko yàlla yëgati te taxawu ko Seydina Abdullah ibn Abbas nee na bës yonentu sallallahu alayhi romb na ñaari xabru ne ah moo ne seeni borom ñu ngi leen di mbugal te mbugaleewuñ leen lu rëy de kii bu sawaan ba pare du setlu ki ci des fa daan rambaaj xadis yaa ngi ci Buxaari wu xadis ji mu ngi ci Buxaari rambaaj mbokk yi mooy toxal wax joo xam ne boo ko toxalee mën naa yàqab diggante bu dee sax dëgg la nañ ci yàlla boole musal bokk na ci teggin ak sunna yi yonentu bi jàngal sallallahu alayhi mooy boo dee raxas sobe si wala aji dem joor ji wala ki faj aajoom buy raxas sobe si walla muy muy dawandiku mooy mu koy fompee lu mel ni mouchoir walla yu mel noonu walla aw doj na nekk loo xam ne dafay nekk lu tool nekk ñett walla lu ko ëpp ba muy set waaye mu tool sunna la yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne idaj idaj idaj idaj naka la ko tuddeeti ida stajmara ahadukum falyastajmir witran koo xam ne dafay dawandiku xam koo xam ne dafay fompe xeer wala fompe doj nee na nekk lu tool xadis jàng ci imaamu ahmad bu mu jëfandikoo it yax bu mu jëfandikoo tamit dem jooru bàyyima yi ndax xadis ñëw na tere ko wane ne sax lekk la ci lekki eh, jinne yi jinne yi dañ koy dundee dund jàmbur nag dund jàmbur la tudd du dëkk bokk na ci yi nga xam ne lislaam jàngal nañ ñu ko mooy jullit bi bu mu tuur ndox wala mu dem joor ci rombuwaayu nit ñi ci seen yoon yi wala fa ñoo keroo ndax loolu daf leen di lor moo tax yonent sallallahu alayhi laa ne ittaqul ittaqul laainayni qaalu laa man laainaani moytu leen ñaari rëbbukat yi ñu ne lan ñaari rëbbukat yi ya rasulallah mu ne qaala alladi yataxalla fi tariqi nnaasi aw dillihim mooy ki nga xam ne dafay faj aajoom ci yoonu nit ñi wala ci seen kër yi xadis jàng ci Abu Daawud ku nekk ci toilette wala mu nekk ci fajug aajo ju jumel noonu du nuyoo du fay ku ko nuyoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere na fexe yi tamit bu mu wax ca jamono jooja ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ne yàlla dafa bañ loolu dafa bañ wax ci jamono ji nit ki di tuure ndox wala muy def la ca des hadis jàng ci Abu Dawud mi ngi ci Ibnu Majata xaraam na it ci ku nekk ci toilet di faj aajo mu jàng Alquran soo defee bu fekkee ne nag dafa yore loo xam ne turu yàlla nga ca wala Alquran a nga ca bum ko dugal ca biir su nee ci barab boo xam ne nag ragal na ne su ko bàyyee ci biti ñàkk ko maanaa mën nañ koo sàcc mën naa sànku ñu ne na ko muur balaam ko dugal ndegam amul beneen pexe bu dul boobu kon nag léppi eh, dem joor léppi fajuk aajo teggin la nga xam ne mën naa jógee ci aada jëm ci jaamu yàlla walla sax jaamu yàlla mënu caa ñàkk ndax dañal sobe dafa bokk ci charte yi nga xam ne chartaay julli la te jullit bi dafa war a set kon dañal sobe jaamu yàlla la azkaar ya ngay def bala ngaa dugg e, jaamu yàlla la topp teggin yi nga xam ne moom la yonentu sallallahu alayhi wa jàngale ngir na yonentu bee ko jàngale alayhi salaatu wasalaam jàngale la dem joor dañ cey laabu walla ñu dawandiku ca ibnu ashir nee na bu dee dem joor yu tasaaro ba mu ëpp nag kenn mënut ca dawandiku rek fokk ñu raxas ko wa jaaza listijmaaru min bawli dakar ka gaitin lama kathiran intashar lama kathiran sawam góor mu ne mu mel ni kon mu ngi lay moytandikuloo sawam jigéen mën nañ caa e, tabaarakallahu dawandiku listijmaaru mooy dawandiku listinjaaw mooy tàncu tàncu mooy laabu dawandiku mooy xeer walla mouchoir wala yu mel noonu ajaa Binte Diop sama mbokk sama xarit fële ca Rhode Island moo may wax ne sa wolof yi moom ci lay am problème ma ne ko moo ne de dégguma wolof dooy jéem rek boo ko defee saw eh, dem joor yëpp dañ caa war a def loolu bu dee nag ngalawal la boroom xam-xam yi wane nañ ne dara warul ci ci wàllu laa boog tàncu borom yi nag sette bu fekkee dafa am luy yol lu ànd ak ngalawal wala sobe su tal su ànd moom ñu ne boobaa ah nañ ko dindi nañ ko dindi ci tàncu wala ñu dindi ko ci dawandiku ñu bañ a guddal wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wassalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh